waaw maa ngi leen di nuyu di leen euh, gërëm di leen sant di leen féliciter ki seen liggéey di am mbégte lool ci waxtaan ak sénégalais à travers votre organe de presse. ñu gis na fan yi da ngay def sorti par rapport ak euh, Auchan bi nekk Guédiawaye bi Alioune Sall jaar loolu histoire nu mu demee. waa en fait je voulais d'abord préciser que ni euh, mbir mi wax jaay bi wu nekkagul loo xam ne lu firndewu la li xew rek mooy man dama toog benn journal daal may woo daal may poser question ni ma lan laa xalaat ci. jaay bi Aliou Sall jaay mairie Guédiawaye euh, Auchan ma ne ah loolu de man maa ngi ko soog a dégg te it man conseil municipal la te mosuma jaay bi pour mu am faaw délibération am te mosuma fàttali ko benn délibération bu nu wax ni autorisé nañu maire bi pour mu jaay mairie Guédiawaye jàpp naa ne mënagul nekk pour la bonne et simple raison que am na maire ba ñuy tabax pareegul. bii fi nekk ci la ñuy def suñu réunion moo servir de mairie suñu conseil municipal bi nii kon jàpp ma ni eh, loolu mën naa nekk waaye bu fekkee ni am na day dina nekk mbir mu yéeme ndax su amee kon ça veut dire que ni Aliou Sall am na fiitu ëllëg jaay police Guédiawaye jaay préfecture Guédiawaye jaay lycée Limamou Laye jaay hôpital Roi Baudouin bu jeexee sax amaana mu jaay jàkka yeeg jumaa yi waaye su amoon tamit duma bett de wax dëgg yàlla personnellement parce que maa ngi fàttaliku benn théâtre bu ñu wax ba du mën lépp mais tey dañoo am Sénégal Aliou sañ lépp xam naa yéen ngi diggam déet infal lépp benn woon mais tey dafa am ku tudd sañ lépp maanaam sañ la lépp il ne recule devant absolument rien bërki démb ak démb ñu ngi wax Petro-Tim génn guñ ci tey mbiru Auchan waaye su ko defee it de na ko wóor ni dina fekk fii ci géejawaay ay doomu géejawaay yu gëm seen bopp yoo xam ni au nom de l'honneur et de la dignité bu leen seen i mag bàyyil dinañ porté le combat loolu nombre rek importera peu ñu nekk cent mille personnes mbaa ñu nekk dix mille personnes mbaa ñu nekk cent personnes mbaa ñu nekk dix personnes mbaa sax ñu nekk deux personnes on se battra pour des principes. nan ngeen fas yéenee porter combat bi. dañuy xaar fi nekk nii ñu ngi xaaragu mbir mi am am na loo xam ne moom am na te mu nekk am bu wér and leen li nga xam ne am nañ ko tegun ko ci Auchan mooy effectivement amoon na benn contrat boo xam moo nekkoon diggante Aliou Sall ak waa Auchan même loolu. ñu ngi ciy gëstu parce que man personnellement te wax conseil yu bari ñu ci waxtaan fàttali ko wuñu ne fu ñu defoon délibération pour permettre maire bi mu signer un contrat ak waa Auchan pas ci maire bi parce que ñoom li ñuy lay mooy mooy Auchan am nañu ay locaux mais Auchan fi ñeen leen jox du maire bi mu ngi nekkoon côté euh, fii miij bi far foofu BRT bi ñëw jël ko loolu nag ñu ngi koy gëstu ñu ci commencé am ay éléments waaye bu ñu ko gëstu ba mu wóor sax effectivement wax ma sax maire bi waaye euh, foofu ci fii Aliou Sall amoon na fa contrat ak waa Auchan dinañ ci taxaw taxawaay ñu ci a taxaw ndax Aliou Sall moomul géej waay nag jiite ab gox taxul nga moom ko te posé ngeen sax benn question danañ fas taxaw dëkk bi am na yoon am na ay ay possibilité de contestation et de remetre en cause loo xam ne dafa jaar dafa jaarul ci yoon. ñu dem ci euh, waa Jaxaay ñu gis tamit nga porte combat boobu noonu foofu litige foncier bi nu mu demee. en fait jaxaay du question de litige foncier jaxaay dafa nekk injustice ba ngeen fàttali ko en 2005 pour venir à bout des inondations yi nga xam ne dafa commencé sonal banlieue bi le président Abdoulaye Wade dafa waxtaan a techniciens yi yëpp mais ñëpp manque ko woon ci ni fii daal benn pexe la ñu gis muy leen jële nit ñi ci ndox mi jógu leen ci ay dëkkuwaay yu bees parce que ndox ndox du bàyyi yoonam loolu moo taxoon le président Abdoulaye Wade lancé woon le plan jaxaay mu nekkoon rek nañu dëgër piit nit ñi recaser leen à Jaxaay ñu nekkoon à peu près 3000 familles ci phase bu njëkk bi ñu war a construire 2595 logements ñu di ko defar mu am du des le président Macky Sall aussi wax dëgg yàlla bi mu ñëwee am nu ci yeggalee mais bu ñuy recaser am na ñoo xam ñu ngi recaser mais am na ci ay 300 et quelques yoo xam recaser wu leen imaginez-vous yéen sénégalais yi ñoo xam ne ñu état moo toj seen kër depuis 2005 tey jii on est en 2020 pendant 15 ans état dugal leen ci ak ndool parce que dugal nañ ci luyaas te bu ñu fàttalikoo bu ñu fàttali tamit côté yooyu ñu fa doon dëkk ñu ci ëpp mooy ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw ñu nekk ay fonctionnaire ñu nekk ay gars yu liggéey dans le secteur informel la seen dërëm seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm ba jënd terrain parce que su ñu amoon ay moyens duñ jënd terrain ci ndox mi dañuy dem jënd terrain ci terrain terrain yi xam ni terrain terrain yu normaux yi la mais ñàkk ay moyens te luyaas moo taxoon ñu kof-kofi au prix de sacrifice énorme ba am seen i kër état jàpp ni tey pour jëlee fi inondation yi naa jël ñi yóbbu leen état moo waroon xënte fexe ba ñëpp jot seen i kër waaye nag toj këru nit dugal ñenn ñu bari ci ñoom ay kër ñu ñenn ci ñoom des joxo leen kër abandonné projet bi ça c'est scandaleux moo xam ne dafa am lu nekkul yoon loolu nag moo tax yooyu nit organisé wu en collectif tey tuddee ko collectif jot suñu àq am nag fulla ak fayda j'en profite d'ailleurs parce que ñoom au delà de li ñuy def ni sax communication action yi mel noonu dañoo am ñaari action phare yu ñu jàpp benn bi sitting la devant la gouvernance à Dakar beneen bi bu ñu ci amul solution ñoom bëgg nañoo sax engager une grève de la fin à la place de l'indépendance te wax nañu te gëm naa ko ci ñoom ni ñaari rek mooy tax ñu mën a jóge place de l'indépendance jëlee leen fa yóbbu leen seen kër yi mbaa jël leen fa yóbbu yóbbu almere yi waaye nag jàpp naa duñ fa egg ndax gëm naa ne président Macky Sall c'est l'occasion de lui e un ndax boo nekkee njiiti réew. yërmande jàpp la ci li nga wax bokk say say ñooñ wax ko da ngaa yërëm nit ñi ci wàllu dëkkuwaay ba tax nga jàll ñu voté benn loi assemblée loi boo xam ne pour lan la pour ñu dañuy wàññi prix loyer ci nit yoo xam ne tabax seen kër bopp. nga yërëm aussi nit ñi ba tax nga tey nga lancé un programme de cent mille logements jàpp naa ni it doo ñàkk yërmande bay bàyyi nit ñoo xam ne pendant quinze ans yow état bi nga jiitee moo tëjoon seen i kër te jox leen kër mu buggoon rek profiter seen occasion bi lancé appel au chef de l' ci ni état tooñ baaxul te ñoo ngi nekk situation boo xam situation bu insupportable la parce que luwaas dafa metti lui-même en est conscient ba tax mu voté loi pour wàññi pour pour pour wàññi luwaas bi kon tey bu état tojee këru nit pendant quinze ans jaadu na ñu jox ko kër rawatina nag ña fa nekkoon di ay junni junni nit jox nañ ci ñu baree baree baree bari mu des tey benn minorité franchement parler le président de la République jël le dossier en main moytu nag ñu naan ko kër yi daa pare noo nag bu ñu fa dëkk see archi faux kër yi bañ fa ña fay ña demoon dëkk fa ñu ngi tudd ay ubbi dëkk ubbi dëkk mooy lan fekk nañ fa ay kër yoo xam ne parewul rek ay gaa jaay leen sañ sa ñëw dagg ñëw ñëw dëkk fa loolu ñi nga xam ne ñu mun kër yi amuñ ci benn responsabilité ndax baadoo la mun te yar moroom baadoo la am buur moo fi nekk pour veiller au respect de la loi kon buur moo war jël ay matuwaayam ba ñi nga xam ne war ñu foon dëkk bañ faa dëkk suñ fa dëkkee wax dëgg yàlla nag buur gën leen fa te nag am ci ñoom yërmande jox leen kër feneen waaye it ñu ngi indexé SN HLM di indexé également administration bi ndax ñoom ñoo yoroon recensement bi ñoom ñoo yoroon recasement bi. kon bu ci ay jubadi amee ay njublang am ci ay fay am ci ñoom ñoo nekk au banc des accusés